jërëjëf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi sant yàlla bu baax santaat ko julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat bu baax cheikhul xadim sunu yaakaar tey ak ëllëg waaye di ma masawu askan wi yëpp di ma masawu jullit yëpp di masawu nag yoonu murit gi nga xam ni ñoo ko bokk ñun ñëpp muy koo xam ni xam naa ni ni ngeen ko waxee dana jafe ma def ay ma wax ci moom tey bari na nag lu ma ci xam ndax ànd boo xam ni ëpp na ñeent fukki at bari na loo ci mën a wax ndax ñun biñ ñëwee Dakar rek ci fin année soixante dix yi fekk nañ ko moom mu takk la xasaayam lii sëñ Bouchra Samb doon wax léegi lu ci bari man fekke naa ko digganteem ak sëñ bi muy jaayante yenn diplômé yi yenn maîtrisards yi yenn euh, licenciés yeeg yëpp ñu leen di jox ay projet ñii dem ci commerce ñuy dem ci boulangerie ñuy dem ci transport moom daa indi diplôme yi sëñ Touba Cheikh Abdou Lahad man bëgguma liggéeyal lenn bëgguma def lenn lu dul sëñ Touba looloo sabab bi ñuy tudd daayira des étudiants mourides moom mu féete daara ja rek tàmbale ci pavillon A ba mu sosoo ba ni ñuy ñëwee kër kër mbay ngira ba ni ñuy amee fu ñu liyee ci sikaab lii diis ba ni ñuy jógee lii diis di dem veden bi lépp sëñaatu boo ñëwee fekk ci daara ji boo demee bàyyi ko ba ni ñu ñëwee fii Touba jaayante lépp ngir liggéeyal sëñ Tuubaa waaye nàmpatal boobu tuut tànk yi ak université nàmpatal leen ci feerte bi ñu war a am ci sëñ tubaa dindi lu bare ci complexe bi nga xam ne daal na am ci boo nekkee université daa doo xalaat sax naan da ngay sol euh, yëre wolof waxtuma laa nag di sol sa ñab loolu liggéey na ci liggéey bu mag a mag sëñ Atou amoon jagle ak xalifa sëñ Touba wax naa léegi sëñ Ablaat sëñ ko quoi bokk na ci kàddoom yi mu jëkk wax daara bi ñu ziare si booba mi ngi ñu booleeg soxnaa sa bu sëñ Baara boobu kër sëñ Abdou Baara gii ci penku jumaa ji fa daan nekk. bu ñu bosaan jógee Dakar ba ñëw ñii jógee Ndar ñii jógee faneen fa lañ daan waaje ba bërëb bii di am. waaye sëñ Abdou Lahad dañu woon daara ji bokk dafa bokk ci kéemaanu sëñ Tuubaa ndax boo doon wër àddina tey jii njàng mi ngeen di jàng foofu ci wàllu àddina ñu tudd fa mbooloom jullit sax yombut te gis waxatuma la ak mbooloom sëñ Tuubaa kon yooyu loolu la gëmoon jàpp loolu ba bi fi sëñ Abdou Lahad mu ànd ak sëñ Abdou Khadir ci loolu Serigne Saliou bi mu ñëwee mu mel na booba daf fekk nag ci daara ji nag war a nag waaw yéen loolu ñoo ko dundandoo booba léegi jóge na ci daara des étudiants murit daara des étudiants et élèves daara des étudiants et élèves ci la sëñ Youssou mii Diop mii ci ci la duggee sëñ Youssou mii ci la duggee ñoom bi ñuy dugg booba nekk gu ne étudiant fekke naa ko ni muy jógee Tëngéej lycée Abdoulaye Badji yaakaar naa ni ba ni muy ñëwee Delafosse ñoom ñëpp ñu bare génération boobu ñu bare booba fekk na ma Ndakaaru ñu ñëw nekk daayira des étudiants sëñ Saliou ñëw ni Isbullahi ñu mu jikko soppi def ko Isbu Tarxiya te loolu tey ji xam ngeen ni ku gis jamono ji ak euh, yenn groupe yi ñu ngi leen di tuddee yu mel noonu di nga xam lan moo tax sëñ Saliou mujjee ànd ci turu Hizbut Tarqiyyah bi liggéey bi ñu liggéeyandoog moom benn liggéey rek laa ciy tudd ndax li lépp xaju ci muy xel xelkom ci xel xelkom fekke naa keroog bi muy indi plan dundu daara yi ñu fexe ba li ñuy dund par bés ñu mën ko toppatoo ci bés bi te booba machine bu ko mën a def amul. mu indi plan di wan sëñ Saliou Kër yàlla daf ma defal tawfeex ma jógee Gabon di ziar 2000 la ànd ak sëñ Moutala Gabon jógee Gabon ñëw di ziare sëñ Saliou ci fajar ji julli suba ba noppi dugg ci biir këram sëñ Isaaxa mu sëñ Basiiru nii laa fekk sëñ Aatu sëñ Saliou Jaxate jombul mi ngi may dégg moonu juróomeel mu tegal plan bi sëñ Saliou nga gis loolu nekkoon liggéey boo xam ni sëñ Saliou booba ni ko xel koom ñore lu mat fukki junne nit nekk fa te war a dund te bëggul kenn dem fenn di wuti lenn fenn liggéey boobu rek doyoon na ba mujj gi loo indi mu jëm ci ndongo daare mu ni woo leen sa ñaat jëlee nu ndax keccax ba tàyyi kenn du ma ko nettali bu ñu indee keccax gi li ñu jëkk def mooy nañu woo sa ñaatu mu ñëw yére yi daan wutal ndongo yeeg lépp liggéey boobu rek doy na ci liggéey sëñ Tuubaa ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ànd na ak sëñ Saliou ak daayira waaye nag xasida yi nga xam ne lii sëñ Muntaxa wax rek doy na sëkk bërki démb teg naa ko ci télévision Futurs Médias ni xasida yi dañ ci am jagle xasida yi fi ko sëñ bi bàyyi woon ak waa kër Cheikh Massamba yi waa Daarul Muxti yi ak mag ñi daan jàng ñëpp fi ñu toll lu ci nekk yeesalaat nañ ko te bokk na ci ñi koy yeesalaat daayira Hizbut Tarqiyyah kon liggéey boobu doy na sëkk ci seere taxawaayam seere saa ngi nii ñii kee kee tudd naa léegi baayam mbay ngir cun bi ñu xajatulee université moo fat daayira bi këram yàlla sunu borom joolee jéggal sikab ri diis jàngalekat yi nekk fa daara alxuraan jiit mës dakk ba fii ku génn fii léegi ñu wan la daara alxuraan ji kon moom dañuy ñaan rek sëñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal sunu borom wane la ak moom ca barsàqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci ñi nga xam ni sëñ bi wax na ni inna allazina saarahu li xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati yàlla bokk ci ñooñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah waaw waaw waaw ñii moom ñii seera lanu ñii seeralan ci li may wax. sëñ Abdou Lahad Bousso mii sëñ Abdou Lahad Bousso yi sax laay wax waaw.